asalaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi fii si Pologne waroon def si combat tey fi samedi bi euh, yàlla def ma doon sentir benn douleur si sama côté bi euh, après ma demoon hôpital médecin yi consulté ma ne def combat bi tey donc ñu annulé combat bi pour prochaine fois euh, am na nag ay rumeur yi daw dañ ma opéré dañ ma hospitalisé mais fekk hospitalisé maa ngi nii di sant yàlla bu baax. dégg naa it naan dañ ko opéré kenn opéré wu moom nag euh, nañu nag ay perfusion yoo xamante ni pour calmer douleur bi la donc médecin bi moo ne ñu mënuñu def combat tey kon dañ koy reporté ba prochaine fois di wax Sénégal gépp ni ñaan yi egsi na ñu ngi sant yàlla bu baax surtout nag di gën a leeral ni euh, gars yi wax ni dañ ko opéré dañ ko hospitalisé yi wax dëgg yàlla ñu ngi nii si kër gi toog di waajal dellu Sénégal pour reprendre suñu entraînement wàññi nañ combat yi. ñëpp ñi nga xam ñu ngi doon ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nañ gën a dalal seen xel ñu ngi sant yàlla bu baax jërë ngeen jëf